tere lépp lu jëm ci wàllug jugee ci biir région dem ci département ba ak beneenub département loola euh, bàyyi nañu ko léegi mën nga nekk ci région jugee ci département bi dem ca beneen département ba mu mooy ñaari région yi di cees ak Diourbel Aly Ngoye njaay di jëwriñ ji dénk lépp lu jëm ci wàllu biir réew mi moo ko xamle ci lu jëm nag ci wàllu ko baykat ya tamit daal ci àddu ñoom tamit fii ak fan dina am ak yolamal goo xam ni na leen ko may ngir ñu mën a dellu ci seen i bërëb ngir euh, dem ci nawet yi dañ ko ci déglu moom jëriñ ci tey dañu jëlaat beneen arrêté ne léegi danañ mën a yaatal circulation bu mu libre maanaam kenn du la contrôler ci région yi maanaam Sénégal fukki région la ak ñeent ñu ne ci fukk ak ñaar yi mën nga ci circuler librement tant que yaa ngi ci biir benn région boo nee ba war a génn région bi ministre de l'intérieur moo la mën a permettre nga mën ci génn Euh, waaye ki nga xam ne fii mooy région wu Diourbel ak région wu Thiès ñoom dañoo yem rek fan tolloon mooy maanaam coppite bi ci am rek mooy permettre nañ gouverneur moom mu mën a joxe possibilité euh, nit jógee ci benn département ci région yooyu dem ci beneen département waaye bu ko permettrewul kenn ku nekk si biir département nga yem loolu nag li ko waral mooy si feebar bi toll ñaari département yooyu muy département wu Thiès ak département wu Mbacké principalement commune Thiès ak commune Touba. si